waay waay ñu ngi tëb ay xeer ñu ngi sànni wóoratul waaw boo defee ministre bu ñibbee après bu ngeen neexee ngeen rayante fii nag waaw mu ngi noonu après ngeen xeex ngeen xool après lu ngeen di siy am doy na waar yéeme donc mu ngi noonu jàng yi tas na ma ne ko jàng yi tas na tege nañ leen mais de toute façon dañoo dégg Amadou Ba li mu bëggoon wax mooy moom nekkul candidat Amadou Ba loolu la bëggoon déclaré nee moom nekkul candidat xëy na nag nit nekk candidat mais moom bëgguloo nekk candidat Amadou Ba loolu laa gis ba muy jël parole ba ko Diouf Sarr dina Dakar am na ñaari candidat Amadou Ba ne ko bul ma boole si xeex nañu fi maa ngi direct Kali TV mi noonu jàngee tas na waaye na waar yéeme na li jafa am ñaaw na président Tukki ngeen nekk ci fii di xeex da ngeen war a doon benn pour ñu war a mën a tànn kan moo ko war a wuutu ëllëg mais ñoom ñu ngi reyante lii mooy président bu tànnee ëllëg nit dana bëri coow waaw doorante nañ fi def nañ fi lu ne pompe à gaz bi saf na fi sap waaw ñu ngi noonu waaye waa Amadou Ba yi ñu ngi bëggee Amadou Ba Amadou Ba ngi ne di ñibbi Amadou Ba ngi ñibbi Amadou di ñibbi Amadou Ba mu ngi ñibbi